mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag dañu am ko ñu seet si si làmb muy Bara Dione li ko waral nag defe naa ne démb jàkkaarloo amoon na ca fa nga xam ne moo doon TFM wala boog fa nga xam ne moom mooy cosaan ca Grand Dakar jàkkaarloo bu waroon dox ci diggante ta Tine ak Boy Niang mais dernier moment gis nañ ay xeex ay yàq ak yu doy doy waar ba yaakaar naa ne face à face ba lañ ca bëggoon mujj ñu ko am parce que li ñu bëggoon mooy Tapha toog Boy Niang toog bu ñu laajee Tapha laaj Boy ñang waaye malheureusement la ñuy wax booy Niang moom moom mujje des fa tafaatin Tine mujje ñibbi li tax tafaatin Tine ñibbi nag bëgg nañ cee am ay leeral parce que itam dégg nañ Tapha Kandji mi nga xam ne moom mooy agent wu booy ñaa wax ah jël nañ ko man maa ko jël ci micro Equivox su mu wax te defe naa itam wax ju ne am na tontu te ñun dañoo bëgg a nekk ci digg bi doxal pour que ñëpp yem ci micro bi loolu moo waral tamit comme Tafa Kandji wax na te ku ne Kandji ne Boy Niang ku ne Boy Niang ne Kandji tafaati ku ne tafaatin ne Bada Jonn loolu moo tax tey ñu seet si ki nga xam ne moom mooy Bada Jonn di responsable nekk ci Bawol yore écrit waaye tamit di sës ci tafaatin Jonn maa ngi lay nuyu di lay siyaar waaw ñu ngi lay fay mhm. di fay waa Equivox yi eh, ñëpp mhm. ah di nuyu it Sénégal yëpp nag it mhm. di jéeglu it ci li fi xas am. Mhm. aja gën a laaj micro yi waaw. di jéglu ci li fi jot a am. parce que mhm. ku sañoon. Mhm. vraiment booy dem signature wala bu ñu la fayee xaalis ngay dem di liggéeyal yi boroom ngeen signé contrat. lépp da nga ko war a teg si yoon. yaakaar naa loolu am na solo. te tafaatin ku ko xam ne nitu kilifa la nit ku am kilifa la am na lu mu sañ am na lu mu sañut. parce que tafaatin ba sunu jonni tey moo xele bi nga xamante ni dix ans la am ñoo bokk atte parce que moom dafa am kilifa te yaakaar naa loolu ku xam bawol bawol xam ko ci kilifa am kilifa parce que ñoom liggéey moo leen tax a jóg fu nu toll tàlluñu sax di dem di xeexoo wala ñuy xuloo wala leneen mhm. parce que ñun danoo gëm ne lépp loo am ci àdduna rek liggéey la ko war a may waaye warul nekk triser warul nekk ay nappaate warul nekk ay ne da ngay jéem a xupp nit ki wala dañ koy jéem a déstabiliser pour que am ci moom dara ñun gémmuñu loolu ak ci lu mu mën a nekk looloo tax ñun lafa am dem ñun amuñu ci benn part de responsabilité aussi booy ñaa ñun duñu ko balaame mais balaa may ñëw John balaa may ñëw ci booy Niang dama bëggoon ñu taxaw fenn promoteur bi leen tëgg di Pape Thialis Faye ma koy nuyu en passage di ko ñaanal jàmm moom moo tëgg combat bi woo leen face fas ngeen war a jàkkaarloo. yaa ngi dégg maanaam face à bi bu mu ko tëggee mara bi bi ñu réglé si combat bi face à face war a am TFM. est-ce que wax ngeen ak moom ci face à bi ci nu muy demee ba ba maanaam balaa le balaa daje bi yam wala non wax nañu ci parce que moom danoon tafaatin mook booy ñaar dañuy daje TFM. parce que ku ne xam na ne TFM wax dëgg yàlla mbooloo waru fa ñëw. parce que benn mbedd la bu xet ah ñu dem ba dernier moment mu reporté ko yokk ci benn bés ne cosaan lay amee hmm. dëmb dëmb lal nu woo ensemble bi cuun woo ma maa ngi koy sant di ko gërëm parce que nit ku baax a ngoog nit ku gore hmm. nit ku nite ku nangoo jàppale tafatin man damay dem ba damay am kersa sax ci moom parce que lii may wax nii moom tey moo ko waroon a wax waaye nag da am na loo xamante nii ware su ko xaare léegi cuun ma nel ma tafa dafa war a signé si mhm. cosaan mhm. mais dañu ko wax calis del ma wax léegi na àndi ay supporter mhm. ma ne ko cuun man yàgg naa ci làmb kañ la cuun wax loolu démb démb démb heure bii ok ak sama bakkanu doom laay wax man amul lul ma jëral trisé ci àddina amul benn booy muy booy ñaa muy tafaatin muy keneen amul kenn kul ma jaral wax lu ma xamul wala may wax lu ma gémmul wala may nekk di wax ngir défendre mber mi man du ma défendre parce que bàmmeelam lañ tëdd man sama bàmmeel laay tëdd te làmb dama leen di dimbali waaye man wutuma ca dara man du ma façon yooyu bil ma ciun waaxee loolu ma ne ko man li ma xam ci face à face bu dee dee ngaa war a woo ay nit public maanaam public da nga leen di wax une semaine avant aussi da nga leen di woon sécurité bu doy mu leer la ne am nga au moins deux cent ma wala UGM ak ay barrières yoo xamante ne nii moo leen di séparer mais du caageen da ngay dikk rek teg benn écran géant ci mbed mi taxaw ne supporters yi ñëw leen dajaloo foofu loolu mooy dajale leen dajaleel doomi jàmbur pour ñu rey leen loolu Tapha du ko def man duma ko def duma ko ko wax bal ma ciun waxee loolu ma ne ko loolu mënul nekk amul benn doomu jàmbur boo xamante ne nii bu gaañoo tey wala bu ko ndeyam ñàkkee tey dañuy dem yoral ko këram loolu duñu ko defloo benn booy bu dëkk Bawol moom bu xamul nanuy organiser ñun yàgg nañoo organiser làmb ñun fii Dakar organiser nañu fi lu mat lu mat journée yu lul jeex organiser nañu fi ay soirée organiser nañu lu ne ci àdduna ak Bandia production ñun xam nañu organisation na muy demee am na loo xamante nii mënoo ñu ci dugal parce que nee nu màggam leen dem boo ko gisul mu gis boppam te man duma xaar ba benn affaire am ma taxaw di ci wax ba mu demee noonu man ma woo Tapha Tine ne ko comme danga nga contrat àndal ak sa cinq personnes ay mbër nga teel a dem dugg xaar leen ci biir moom mu ñëw ak euh, koovaam ak ay supporteram ñoom bu leen neexee soo foofu ba suba bu ngeen signé ba noppi nga xaar ba ñu dem ah comme ñoom yow yaa ngi dëkk fii nii Grand Dakar ak Medina benn la bu ñuy déparé ba dem pikin nga gën ak sa juróomi nit dem sa yoon histoire du am Tapha loolu la pare te Tafa julewut timis këram fala taxaw dik bëgg a dugg ñu naa ubbiwunu bu beeg dañuy xaar fexe ba dajale leen fa Tafa bi mu dikkee taxaw ay huit personnes la la la nekkat te ay mbër lañu ñee ba ñu dikkee dik ku ne gis na image yi dañoo dikk ki scooter tourner scooter yi yuuxu saaga leen sànni xeer fekk fayit mbooloo mu du jeex moo xam ne dañu doon seetaan kenn xamut fi nu jóge parce que écran la sànni leen i xeer booye it dik riposte mu doon xeex boo xam ne amul ku la mën ne ñii ñoo doon xeex. ah Tafatin amul kennam ku fa xeex. déet John déet loolu ko waxee amee la ñu dem amul ku fa xeex te Tafatin àndoon ak ay nit. mais ñamu àndal juróomi nit la àndal juróomi nit. mën naa xeex ak ak ña ñaata kaar la koy andi. mais mais waa Kër Boy ñaar tamit est-ce que ñoom kese mën nañoo xeex. seen biir mais daa am fu ma lay waxe daa am ñu fa nekk di seetaan ñu dig sànni xeer ci seen biir ñoom ñu sànni wan ay xeer mu dal ci oto yi. Tafatin juróomi nit bu nu xeexee convoi bu tol noonu faw nga gis ñu gaañu te tafaatin amul kenn nit koo xamante ne nii gaañu na ci kenn lañu ca xaañ waa kër Boy Niang wax bu yennu maanaa dañu koy wax dañ koy xam ñun ay nit lañu mënu ngeen a nekk juróomi nit juróom benn nit ah ñii dikk ak ay kaar ak i scooter dik toj seeni oto toj seen lépp te kenn gaañuwu ci non oto Boy Niang oto waaw oto kay buñ ko tojee ak xamaa Boy kay bu àndoon ak ay nit mais daa am fu ma daa am fu ma lay waxee danoo xeex tasaaroo ku ney sànni parce que fi ñu nekkoon benn la ku ney sànni kon mënoo bañ mu dal benn oto di ku ñu toj oto mais xeer xeer yu mel ni taw oto bu mu fa fekk day day yàqu parce que Kéba lu mu ca doon ba nu toj ñaari oto te di boo ñaa man waxuma ne boo ñaa boo ñaa ña fa nekk ñoom ñoo fa nekk di sànni xeer ñee dem nañu seen yoon bu yàgg tafa ba nu ko woowee ne ko dellul moom ña mu yoral embauché wu leen doonuñu ay employé mënu leen a dikk andi leen danoo dem ñibbi mënuñu ko wooxaat naa ko ñëwal tafa di ñëw moom kese waaw kon yow li am li am da nga ko jiñ promoteur bi li am promoteur bi la promoteur bi. Eh, promoteur bi nu mu ko defee. non xam nga promoteur bi organisé. mais mais yow promoteur bi est-ce que bëgg waa taxawal maa la. waaw fii nga dikk nii. bu fekkoon ni da nga fee dikk ma ubbi bun yi mu ne ngal ma denc fi un million teg fi un million. waaw ah nit dikk jël ko fe maa tëjul samay bunt. promoteur bi daa war a def li mu war a def ba noppi soog a revendiquer parce que dégg naa mën a contrat la signé am na pénalité yu ci am boo xamul da ngay laajte contrat du question da lay tënk tëj la rab contrat am na foo xamante nii bu fa tolloo toujours am na fenêtre yu ubbeeku pour nit ki génn contrat balaay valable fekk yow nga def li nga war a def man ma def li ma war a def waaye bu fekkee ni contrat bi dañu ko signé man respecté wu ko boo ko respecté wul amul loo ma mën a wax est-ce que respecté contrat passé wut ñu woo la yéen toog ngeen ci plateau bi booy ñaa ne moom moom moo fa toog booy ñaa booy ñaa xam nga lan tax mu toog fa waaw parce que booy ñaa dafa am sécurité parce que ànd naak ay kaar yu du jeex ñu mbenn mber la ñu ànd ak juróomi nit duñu fa dikk toog parce que mën ngaa dugg ci biir mais gën day am ñun def nañu la ñu war a def de xam nañu la ñu def bu baax hmm. booy ñaa mbooloo la àndal ay karawaan dégg nga mu ne sama karawaan ñëw ñu sànni leen waaw parce que Boy Niang loolu la ko promoteur voilà promoteur baa ko indi lay supporter mais ñun nag la moo leen tere yóbbu ay supporter Boy Niang problème ba mooy waaw ànd ak ay nit ñu xam la mais àndut ak ay promoteur man organisateur la loolu laa bëgg nga xam mbooloo duma ko yóbbu benn mbooloo fenn ci àddina te amul sécurité parce que xam naa la ci sécurité xam naa responsabilité ba nga ca am parce que ay nit mënoon na caa dee maara day taali làmb ji ci boppam mën nañu cee jaare ñu tej ko mën nañoo suspendre suñu écrit suspendre ko à vie fekk ñu ca seen yoon nekkul ñoom am na nañu ci problème liggéey boo koy liggéey da ngay set combat bi du combat boo xam ne nii da komba combat sog ah du combat Balla Gaye Tapha du moroomu komba bi déet waay jon combat Modou Lo Modou Lo Balla moo gën a nekk bi sog combat Bombardier Tapha Tine moo gën a nekk bi sog te si def nañu signature mosoo fa dégg loolu Gaston mosoo dégg benn signature am bu toj waaye nag nit ki bu dee da ngay wut bës da koy def wutal sa bësu bopp mais du caageen da ngay wut bës pour sacrifier ay doomu aadama pour boog ñu naa sa signature ba nit ñaa nga ca biti mënuñoo dugg ak mbooloo mi loolu dangay def li nga war a def mais du caageen ay bakkani jaamur ngay sacrifier tafaatin du ta du nekk foofu ñun dañu ci d'accord ay pénalité al bu ñu lay dagg yooyu du tax tafaatin di reylu kenn parce que ku nu fa goro ni jaas yi mënuñu la dagg tey la ca tafaatin wala fere ku ca deewoon tafaatin mënula la fay sa bàkkan kon nañu waxante dégg ñu nekkuñu ay xale yu ndaw dégg naa ca palaato ba ay Malick Thiandoum ay ñeneen man damay attaqué direct Babacar may ma non ñoom seen liggéey la ñuy def may ma rek Malick Thiandoum mais sa liggéey da ngay xam Malal ak ngay xam mais ñoom contrat Tapha mais bu ñu nee Tapha daa war a ñëw mais Tapha Tapha ka ñëw ka nga xamante nii julleewut timis keram kooku bëgg na mais bañu dikkee laaj caam bu CNG bëgg a dugal naa am na daan yi ci fekk tafaatin da leen ne parce que fii amul sécurité te ñoom xam nañu ko am na loo xam ne dangaa war a laaj ñaari version yëpp wala nga laaj boo xam nga soog a wax tafaatin mais yéen ñu fa nekkul tam nu ñu leen di laajee man tafaatin dama koo xam tafaatin ci daaru duniyaa musula saaga doomu saaga musula génne ci gémmiñam te du ci génne ci àdduna dañu ko yar du andi benn histoire Boy Niang man du ma wax ci moom parce que mbër mbëray wax ak moom parce que Boy Niang sama doom la la mu war a def la def dikk na ak ay supporters am. loolu loolu waaw waaw parce que loola loola moo ko arrangé. parce que moom wax nañu ko ne da ngay andi mbooloo. mu def ko moom fekk na préparé na mbooloo parce que. waaw parce que dañ ko ko wax mu def ko. non mais dañu ko ko wax mais moom daa fekk mu pare. loolu wax leen ko di. daa man du ma andi mbooloo moom dama la ne ñun bokkunook ñoom parce que ñun mbooloo mënu yor. ay responsable lañu ñoom ñëpp ay bawol bawol lañu jon waa ñee itam ay responsable lañu kat du ñu nekk di xeexoo non jon boo waxee noonu day mel ni comme daa ñam daa am ñu irresponsable ak ñu responsable man xamu man xamuma loola man non yow yaa booy ñaa ñamu àndal man man booy ñaa xam nga lan laa mën a wax ci mbiyo moom Babacar waaw mën na maa wax ci moom ne man ci li mu ma woon waaw xale bu yaru la waaw lool moom am na Tafa Kanji mi nga wax léegi Kanji waaw Abdou Kanji sama xarit la waaw Abdou Kandji yàgg na nu muy supporter Khadim Ndiaye may supporter Sàllo ñuy ànd ba nekk ci ay xarit dara musul ñaaw. ok booy ñaa Burxaan Wad mi di menaceram sama xarit la. dañuy wootante heure bu ne day ñëw ci man hmm. booy ñaa ñaari loxo lal may nuyoo man duma ko wax dara parce que moom moom moo xam la muy def moom xele la mbërum làmb la. li mu war a def def na ko ñun li ñu war a def def nañu ko mais promoteur bi moo defut li mu war a def Babacar. fépp fooy dajale lu mat cent personnes. Hmm. yoo xam ne dañuy xëccoo benn affaire. Hmm. mënoo leen faa dajale te amul sécurité. wala loolu nga gis waxuma la tafaatin. waaw ah. Hmm. waaye Ahmed Lagros mi gën a ndaw ci école de lutte ba da joon boo ko boole woon nag adversaire am yóbbu leen foo xamante ne nii gendarme amu fa dara amu fa. mën nañu fa reyante waxumaa nag combat bu tollu kom tafaatin. kon nag nanu waxante li fi nekk te bàyyi par am na solo tey am na fu ma lay wax. waaw Babacar bul ma dagg. parce que yaa dikk sama kër. waaw déet man di tax ma ñëw sa kër it tey damaa jël Tafa mu wax mais damaa bëgg a leeral. te Tafa Kanji ca côté la làmb ja waxee ak mais mais Tafa mais Tafa daa am lu ci nekk. waa problème bi du problème mu Tafa Kanji du problème mu Boy Niang mu loo xam ne dañoo taxaw def la ñu def promoteur ba defut la mu war a def ba noppi. ñu taxaw ca plateau ba bëgg a taxaw naa tafatina def lii tafatina def lee man loolu laay leeral mais man awma problème ak Boy Niang awma problème ak keneen man amul benn doomu aadama bu mën a sensé sama jiko wala nga tax may wax loo xam ne ni nit nit ñi xàmmaluñu ma ko mënul nekk parce que man mësuma lekk alalu mbër te ñaanuma yàlla ba ba addinay tukki ma soxla ci mbër dara parce que man yàlla dimbali na ma man famille ba ma bokk amul benn doomu aadama bu cee mës a nekk ñu lay dimbali wala ngay dungru nit wala dara. non parce que man maa ngay ngi sant yàlla bu baax jot nañ ñëw ci côté sportif. ji ci côté lamb ji rek. no ci côté lamb ji la ñu nekk parce parce que man bu may wax dëgg. waaw daa am foo xamante ne nii Babacar. il faut nga may nit ki mu leeral. parce que man damaa toog fii ci tele bi di déglu am ay wax yu may dëgg boo bëggee mu leer nag xam nga nan nga may may. waaw man ma taxaw. mais li nga leeral kay leer yow kay wax nga li nekk non non non am na loo xamante ni il faut ma leeral ko. bu fekkee ni loolu rek Babacar. waaw nga bàyyi ñu bàyyi. foofu waaw kon waxal maa ngi lay déglu déet man kay ma la du du ma la teree wax waxal waxal li nga bëgg a wax. taxawoon di wax. waaw nit. waaw da ngay nit ñi. ok parce que ñun ñëpp ay boroomi xel la du. ok parce que mënoo toog ci biir ab saal yor sa mbasin bu rafet ah ñu climatiser saal bi nga taxaw fee xeer yi dal ak jaas yeeg kii nga ne mbër mii maanaam dafa war a ñëw quoi saa muy ñëw da ngaa génn ñooñu foofu nga toog am na ñoo xamante ni ñu nga ànd ak tafaatin te fekk ñoom ñooñu toog foofu mën nañu leen a fay weer pour ma xam loolu nga xam ne amul ku leen fay nekk di leen xarul ah, liy daan mbër doonul ni ay signature la hmm. tafaatin dafa pare ànd ak ay nit ñu mett la woon dafa wani and ak ñoo xamante ni lanuy daane fii mu tollu ak nanuy daane. Hmm. du nu dem ba ca làmb ja di ko làmbatu. est-ce que amu ngeen lu ngeen di ragal ci Boy Niang. barke alxuraanul karim laa lay giñal amul len tafaatin ku jàkkaarloog Bombardier jàkkaarloog Cek jàkkaarloog Abdou juuf lan ngay ragal ci Boy Niang. mais morom mu moroomu ñaa ah? daan na leen. de ah? Ama Baldé mu Boy Niang daan na nu man damay dox fii ci sama peron bi ba mu yàgg ma fakastalu daanu mais du caagin damay ragal ne fii danse moo fi nekk loolu du ci dara. Hmm. moroomu booy ñaa daannu hmm. taxul booy daan nu parce que moroomu booy ñaa bul nu daanee daa am jàngat bu nu ci war a am pour après beneen booy bu ñëwee hmm. foofu laa bëgg nga xam te moroomu booy ñaa nga wax mais bëre yi bokkul mber mu ne ak sa façon euh, booy ñaa mi tiitu ngeen ci moom ci bëre booy ñaa dafa am encadrement macha allah te bëre kat la te mën naa xeex mais yow sa diggante yàlla ban encadrement la am bu tafaatin amut Ah, yow yaa fi wax léegi encadré yaa fi tudd Bourkhane Wade. déet Bourkhane xam mais Bourkhane Bourkhane. yaa fi wax xës Cheikh Ndiaye xam nga ko. waa taxawal ma la daa am lu ma lay wax ñeneen ñoo xamul. mais yow yow Saaloo xam nga ko. Saaloo wa xam naa ko champion d' Afrique. waaw loolu ñaata yoon meilleur lutteur d' Afrique. ah. champion drapeau chef de l' état. Cheikh Mbaba noonu Djib Diouf noonu. Bada Sung Saaloo mbay Ndewaan mi ànd ak kee. Hmm. ak Mansour Diop. waaw ah. Hmm. du ñoo ëpp xam-xam ci ci ci kii. ci Boy Niang. xam nga Mansour Diop sama xarit la. dañuy wax lu ne sama waay la. <laughs> sama xarit benn bakkan la maa ngi koy nuyu borom Italie ku ci mës a laalal Cheikh Mbaba suuf amul. Ah. ci mës daan jib juuf amul kon encadrement bi anamu. ñun xam nga am na loo xam xamante nii man duma dugal ci benn booy ci sa bopp pour nga complexe. Tapha Tine amul benn mbir bu ko dàq bre amul mbër bu ko ëpp doole ponkol yi ëpp booy ñaa hmm. ku ne ci joxoñ nañu la tafaatin nga daw kon yaakaar naa du booy ñaa mooy tax tafaatin di def lu mu lu mu daawul def parce que combat bi doonul combat boo xamante ne nii dafa nekk soog ci ci tafaatin parce que bu doonoon ni tey dañu ne booy ñaa moo ëpp tafaatin doole mën nga ne wax wala moo ko gën a diis kon mën nañu. mais yéen est-ce que da a yaakaar da ngeen doole. parce que da ngeen koo sut ëpp ko volume tax ngeen yaakaar yéen a ko ëpp doole la ne. booy ñaa yàgg naa bëri ku ku ëpp de wala bàyyi ngeen ci loolu xel ak ña ko opp ak façon yaa ko opp nanuy bëri daan na mbër mu ko ba tàyyi sut li ma wax ak façon ak i mbéram mbér ak ay mbéram te la te la wit ut soreetul la jot bu ànd ak bawol la ñu koy teg ci yoon mu xam la muy def ba noppi it mën a bëre boo ñaamee ma gis daa mel ni pare na de eh, ñun ñoo ko gën a pare foofu ñun bu doon demb demb la ñu wax demb wallaay wal asim ñu bërek moom te boo nu yóbbu woon ci géej gi nii hmm. ñu ñu taxaw ràng fa hmm. ñu ne ku daan rendi hmm. yow doo teg wala yow de man moom du man kay seetaan laa mën a def reporté ah, mais daa am fu ma lay waxe xam nga xam nga euh, Babacar waaw ah. man waxu booy ñaa sax billaay bu ma sañoon du ma si dugg ah déet booy ñaa ngeen di bëreel nag ndax moo indi booy ñaa la ñuy bëreet mais moom ngeen lekk avance am tafaa moo war a wax ak booy ñaa waaye man booy ñaa na lu mën a amit euh, euh, papaam laa mën a nekk nag fa ma waroon wax ak booy ñaa ñëw da daa mujj ñibbi wax mujj fa wax ak moom ah déet mu wax nga ci ba pare ënd ënd nga yow la yow la nga xalaat wax nga ko Babacar non du li ma xalaat Babacar hmm. nañu waxante dëgg te ku ne ñemee li ngay wax yow fekke nga lépp lépp lu leer la ci yow lu fa am def la leer nañ man daal xam xeex nga da nga yor micro. gis naa fa xeex daal xam naa dil ma euh, sànnante xeer bu tas pour bëgg ma yëngal mais xam nga li fa am. <laughs> mais yow. <laughs> comme ni wax dëgg yàlla yore woon plateau ba yore woon. responsable waaw plateau boobu ñu ko yoroon mat nañu ko itam. man man mënu ma la mënu ma la wax dara di leen lan tax matuñu ko. Hmm. déet ah, mat nañu ko. no non mat nañu ko nag. fa plateau bu Malick ah, Thiandoum ne Malal Senior Papa Thierno mais bu la neex xam nga tey bu ma bu la ah, neexee tey nga wax boo waxee ne met nañu ko da nga may laaj ma wax la la tax ma ne la mettuñu ko. yow foo teg ne matuñu ko. xam nga fan laa ko teg. waaw mbir boo ciy dugg da ngay xam la ca biti ñoom ca biir la nekk xamuñu la ca biti xamuñu la tax tafaa dem ay xeer dalut leen ñu nga toog sañ se ba jëkk kon waruñu ne tafa na ñëw te xamuñu la nekk ca biir ca biti. dafa ay doomu jaambur la àndal du leen sacrifier ngir komba du leen sacrifier ngir xaalis loolu tafa du ko def duma ko ko def loo nde bu doon loolu ñun ñoo leen gën a jege Grand Dakar kon ñu woo booy yi ñu ne fa xëpp waaye kon maara day taali bu fekkoon ni dañoo woo booy yi pour ñu ñëw biig doo dik fii di tal a nekk di wax damay nekk police di génne ji ay nit ak dem hôpital di di sowe ji ay nit mais la am solo ci nit ay doomu aadama boo seqeek ñoom même bu nu mettut yow danga nga war a mett da nga war a mett la nga doon man yombu ma wax Babacar mais man du ma caaxaan duma ma triser man awma lu may wax Mhm. boo ñaawal lu may wax leneen ki may wax mooy promoteur bi. rek parce que aussi moom bu fekkoon ni ba mu dikkee sax dafa wax wax bu rafet. dafa def la mu def ba noppi wax wax bu rafet man duma ko wax dara parce que ñun ñoo bokk dekk bawol est-ce que comprendre mais nag mënoo def li nga def ba noppi taxaw naa tafaatin dafa waroon na dikk waaw man bu fekkoon ni daa dikk andi ise ne danoo toj sama oto wala danu maa xaañ kon ma mën a wax yow tafaati nay toog foofa di xaar ba nu toj ba nu xaañ ko wala ñu toj otom wala ñu toj boppam xam nga yenn wax yi yenn wax yi yenn wax yi sax maanaam day boo koy wax sax dañu yaakaar ne kii dafa nekkul nit quoi tafaa mooy toog di xaar di xaar loolu yow fekk nit ki agut foofa rek warul jël ay responsabilité dangay bàyyi ba nu gaañ la ngay soog a dem naa promoteur bi nii wala moom dafa yaakaar ne boo siñeek nit ki contrat yow yaa moom wala leneen Ah, waaw am na solo léegi daal jonn kon ah, li nga wax leer na nañ léegi euh, ban sensibilisation ngay def pour ñu jeexale fi pour que tamit violence bi ñu moytu ko ci combat bi bala huit août amuma problème ci Pape Thialis Faye amuma ci dara parce que ñoo dëkk Bawol man ku ko yéene laa man combat bi yow xamal nga sa bopp ne la tax mu àgg man dama cee mu sa taxaw pour que combat bi ak ñu jàppale ko moom te yëgu ko musuñu toog ka mu tudde combat bi ba mu ko koy tudde ah ña dox affaire booba samay xarit lañu ba mu génnee laa leen ne jàppale leen ko mu taxaw tuddee ko. kon yàlla na yegg ak jàmm rek loolu muy Assis Ndiaye man ak moom benn lañu. waaw loolu yëpp ah, am na. ba mu taxawee man ba mu nekkee Màkka laa ko woone ko jàppale ma ci combat bi jàppale Thialis ba mu dikkee ñu di ci wax boo yàlla dogal affaire ba sotti te Thialis yéegul yéeguma parce que man du ma forcer relation mais man ñoo bokk dëkk sama mbokk la te problème am na il faut ma jàpp si mais nag loo bokk bokk ak nit ki it bu fekkee ni dëgg dafa ñëw dangaa war a taxaw moom bu amut fitu taxaw wax dëgg wala xëj na mu am grandeur wax dëgg man ma taxaw wax dëgg amut kenn ku fi dem di ko demal fenn foo xamante ni amul sécurité ñun nag bul nu yóbbu woon kër booy ñaa ñu fay signé ca buntu këram te mu am sécurité ñun ñu dem ñun amuñu problème fu mu nu mën a yóbbu te fekk na foofa am na sécurité ñun pare nañu lu dul mber mi mais pas ñun ñuy dem nag bëgg a rappli contrat tax ñuy yóbbu ay niiw wala di yóbbu ay blessement parce que combat Ama balde am na ñoo xamante ni jaasi ci bopp ba bopp bi boo ko gisoon yow doone kooku déet na dund xelam nekkatul normal ak jaasi dagg sa épaule ba muy lang ñu di ci fere ay un million et quelque nga noppi làgg yi pour pour que benn combat tafatin bii nga xam ne benn combat la boobu da koy bëre benn jour dem wéri keneen ñu di ko defal promoteurs yi promoteurs yi ñooy ñan wala ñoom dong ñoo fi nekk Gaston yu tegu fi làmb heure bu ne Assis Ndiaye Assane Ndiaye Luc Nicolaï ku ne mais lan moo tax ñu bëgg na wooxal nit ñi ci ci am mbedd wala ab tele wala foo xamante ni yow leer na leen nit ñi xajuñu fa pour ñu daje fa di reen te yow nga toog ci sa plateau naa lamb ji am na coow ak am na engouement parce que ñoom coow la la muy bëri bëri amul benn promoteur bu fa sa doom bu fa andi sa doom amul benn promoteur bu fa andi sa doom muy géreel la bu wala mu nekk ci biir mbër yi kon nag man duma ànd ak yéen doomu jaambur wala kenn xam ne li am na max am organisation xam lépp di ko andi foofu pour que mu nekk fa ñuy xeexak ak moom ak rente bu la neexee nag ku mu neex ah hmm. ñun ñu ñi bi nga nekk ci plateau di wax naa ñoonu fekk fii parce que bi ñu bi ñu wax ne sowal Taphatine da leen a attaqué Taphatine du attaqué Boy Niang parce que man loolu caméra yaa ngi fi bu la neexee nga teg ko calis ba mu tegee làmb jooja kenn nekku fa benn gendre ma nekku fa nga yóbbu ay doomi jaambur fii ba Joal foofa yépp nekk ay séréer ànd ak tafaatin ba mu demee taf booy ñaar tuus na ba noppi tafaatin dikk di tuus mu plongé dugg ci seen biir ñu daj raj rajoo xeex ba xeex ba ne cur parce que man mii yow ah booy ñaa waxuma la tafaatin waaye man mii donc bu doon tuus ma xam ne tafaatin laa ànd ak bu ma duggee ci seen biir histoire laa bëgg kon nanuy waxante dégg am na loo xamante ni wax lu ma gëm du ma wax lu ma xamul kontaan ci yow yooyu ñun duñu ko nangu te duñu ko mës a nangu te tafaatin amul benn ñoom ña ca plateau baak ñëpp bu fekkee ni nañu wax nañu wax seen position xam ne fii la ñu far man kenn rek laa ci xam ne moom li muy wax man mën naa koo gëm parce que Lamine Samba ba affaire ba amee dafa mandu mais ñeneen ña ca des muy Malick Thiandoum muy muy doomi Golbert di làmb ci boppam la ñu musul a xam musuñu ci dugg ay reporter la ñu Malick Thiandoum la xam <laughs> reporter la xam mais xamul làmb day reporter reporter professionnel la man d'accordal naa ko ko mais xamul li xam na non Malick xam nga xam lam mooy lan xam lam xam nga mooy lan waaw ngay ànd ak mbër waaw non mais loolu tax rek nga xam lamb yow tamit nag jonn nag bu ah, kon kon boog bu dee daa xam la d'accordal ne dafa jéng waaw déet man mënumaa wax ku ku jéng de ah. parce que yéen tamit euh, xam nga yéen tamit la ma seen problème ak reporter yi yéen su reporter yi waxee bu leen arrangé ngeen ne jéng nañ bu leen arrangé ngeen dañoo jéng ah, non John man loolu parce que loolu ngay wax Malick Thiandoum ñu ngi koy wax Babacar di ko wax am la joxe moom daa jàpp ne Tapha Tine mën a ñëw remplir contrat Babacar waaw yow ba may nekk ci làmb di ci taxaw waaw booba booy amit amoo lu ma ñaari at. waaw d' accord naa mosoo ma dégg comme facette bi may waxee. mosoo ma ko dégg mosoo ma dégg ci may wax len mais am na loo xamante nii ñun dañu ko dul nangu. duñu ko nangu tey duñu ko nangu éleg d' accord naa waaw duñu nangu di masla ba nu masale la. ñun amul lenn lu nu ca def. am na solo. mber ma nag ñun tuumaalu nu ko. waxuñu ko dara suñu doom la ñi mu ànd ak suñu xarit lañu. li am solo mooy booy ñaa mooy may tafaatin xaalis. tafaatin mooy may booy ñaa xaalis booy ñaa def ma respecté duma ko mos a wax dara ñoo bokk benn group bu nu bokk ci groupe dekki lam bu Thiès bi Cheikh ñaa ngi yor di kaaf di ree mul may tooñ nekk booy bu baax bul ma bëgg macha allah est-ce que comprendre loolu am na solo kon man d'accord naa man mbër mi lu mu def ak mbër mi man amul problème uh-huh. mais nag promoteur bi na jël ay responsabilité am kontaan naa ci yow looy tàggoo waaw li may tàggoo mooy di leen sant di sant bawol gépp di woo bawol gépp di woo it Médina yëpp parce que man yaakaar naa Sénégal yëpp Bawol ak Médina moo ma fi génnal parce que Bawol laa mais sama yar Médina laa ko agle fi la samay place nekk fi la samay kër nekk fi la sama ay mbokk nekk kon li may tàggoo mooy di gërëm Bamba fal bu baax di ko ñaanal parce que vraiment jox nañu ay école ñetti école ba ñeent ñu nekk fa di entraîner di def lépp te kenn xattaluñu Mhm. waaw kon mën naa ne man Bawol ak Medina laa gëm te waa Medina rek ci Bamba Fall nekk nit ku baax koo xam ne vraiment mair bu am yërmande la ku jàppale senesam di jàppale Bawol dem ñu ngi ko doon sargal vraiment affaire signature bi sax moo taxoon demuma fa parce que maa doon coordonné affaire bi. Mhm. mais vraiment daal ñu ngi koy woo ci combat bi di woo Jibi Thiaw di woo Mbay Joon Moor mhm. Ngoom xam nga ak euh, Dame Diop Met Pape Sène xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo pour ñu taxaw bawal taxawu doomi bawal yi Bamba Fall taxaw doomi bawal yi parce que njabootam lanu parce que bawal gépp ñu ngi Medina loolu ñëpp xam nañu ko te fi la ñuy wotowe fi la ñuy defee lépp kon vraiment aussi Medina ay nit ñu baax lañu parce que Medina tey bu fekkoon ni tey Medina dafa jóg dem ci signature bi du lii la ñuy nekkati di ko wax mais nag yàlla daa dogal bu fekkee ni dangaa ànd ak ay nit ñu met problème du am parce que biig maa ngi dégg ñu naa tafaatin dafa encadrement ana ñu daa war na def ni booy ñaa def tafaatin ay encadrement du nu wonewu du nu nekk di wax li nu koy wax mbër mu am kilifa la nu balaay dem dañu koy yëpp wax ko li nu koy wax toog kontaan ci jërëjëf jaajëf euh, kon noonu la demee ah yàgg maar Bada Dione la woon dégg ngeen li mu wax ah moom nag li mu wax moom moo ko wax ñun tamit lii lañ ci bëggoon maanaam ku ci nekk nga wax sa version Kandji wax na bi tey moom wax na beneen bi ci des mooy ah ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo nekk si presse bi encore une fois dama koy wax di ko waxaat souvent ñu ne ñu ñoom dañoo ki far fi wala ñun faruñoo kenn ñun ci milieu bi la ñu di def suñu liggéey suñu grand yooyu maa ngi leen di nuyu muy Malal Signor Diagne bu RFM Malick Thiandoum TFM ah, Lamine Samba ak suma papa Thier maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm di wax ka ni daal yàlla na Sénégal am jàmm combat bi tamit ñu bëre ko ci fair play mu jeex que le meilleur bi ci des mooy tamit encore une fois rek sécurité moom comme li ñu wax rek fu mu ñuy dajale mbooloo rek nañuy veiller ci seen sécurité parce que tamit sécurité bi mooy jëkk te mooy mujj parce que mooy tax ndaje yi di am ci jàmm ndaje mu mën a doon sécurité moo koy tëj moo ko war a tëjji ba beneen yoon.